gàmmu di guddi gi nga xamante ni moom la ñu jagleel di ci màggal judduk yenent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi di ko amal ci ay gox yu uute ci àdduna bi wërngal këpp fi nga xamante ni nag mooy ci diwaanu Tiwaawan ñoom ci anam yi nga xamante ni ci lañu gàmmoo woon daaw ci la ñu fas yéene gàmmuwaat ci atum 2021 tey jii ki nga xamante ni nag mooy xalif général des Tidjane di Serigne bay Sy Mansour ak it ñenn ci ñi nga xamante ni ñi ngi bokk ci kër Cheikh Seydi xaaji Malick si daal di nañuy daje ci kër ki nga xamante ni mooy Cheikh El Hadji Maodo bu dabaax ci seen daje boobu nag jot nañ fa tënk ni daal li nga xamante ni mooy gàmmu gi ñoom duñu ko amal ndax mbas mi mi ngi fi ba tey te ginnaaw bi ñu waxtaanee ak ñi nga xamante ni ñooy docteur yi nga xamante ni ñoo fa newoon liñ leen xelal daal mooy ñu daal di koy dàq ba beneen jamono. ñoom nag ñu jàpp ni loolu mooy li nga xamante ni mooy li gën di loo xamante ni itam moo gën ci wér gi yaram ba tax ñoom ñu daal di jël dogal ni daal gàmmu gi ren du ñu ko amal ki nga xamante ni sax mooy xalif général de Tidiane daal dinay xamle ni daal bataaxal boobu dina ko jël daal di koy jébbal képp koo xamante ni bokk nga ci famille Cheikh El Hadji Malick si ci noonu ñi nga xamante ni ñooy moustarchidine yi te Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha si jiite ko ñoom nag li nga xamante ni nii rek jot nañ ko xamle mooy que ni daal gàmmu gi daañu ko def comme ni nga xamante ni rek noonu lañ ko daan defee ay at yi weesu ci noonu ñoom sax ñi ngi jox digg daje képp koo xamante ni rek soppe nga ñu lay jox digg daje di la xamal ni daal samedi bi nga xamante ni ci la ñu dëgmal ci la ñu fas yéene bay li nga xamante ne mooy champ de course ngir mën a waajal li nga xamante ne mooy juddug yenent bi sallallahu alayhi wa sallam